donc suba euh, mhm. moom euh, duñu liggéey. Mhm. Euh, mais ce sera une journée très dure. parce que li mhm. tax ma wax ko mooy xam nga soxna Thialla. il faut ñu xool la situation de la presse. lan mooy origine bi dañoo am une presse boo xamante ne dafa taxaw problème yi am na génnul sur la place publique yëgguñu ko sentiruñu ko en tant que tel automatiquement que le gouvernement changé. ñu gis gars yi commencé coow ñii am problème chaleur ñi seen compte ñu tëj ko ñii ne la amatuñu sax lu ñu joxe avance tabaski à l'image du groupe Walfadjri est-ce que mënuñu poser wu ay questions gouvernement bu fi nekkoon coow amul woon wala sax coow bi amee woon ay 40 milliards la woon xaw ma je sais pas président woo leen ci pet ne leen jéggal naa leen. trois mois après l'installation du nouveau gouvernement top le début des problèmes amatuñu lu ñu fayee salaire amatuñu lu ñu déroulement lu ñu koy wax comme ni ñu koy wax. Mhm. yenn kër ñu commencé gis ñu tëj. Mhm. on peut se poser des questions ci li nga xamante ne moom mooy anam ya ñu yore woon seen kër c'est juste des question yu mooy poser benn. Mhm. ak lépp lu muy mënti doon gis nga dans un pays démocratique la presse. a un rôle primordial mais quelle presse ban xeetu presse et c'est là encore une fois que ñun suñu bopp ci la ñu ràññee ne am nañu problème ñu def autoflagellation ne il faut ñu assainir suñu milieu parce que am na ñoo xamante ne rax nañ ñu wala am na ñoo xamante ne am na taxawaay bi ñuy taxawee te mhm. bokkul ak taxawaay bi nga xamante ne xëy na ñun mhm. journalistes yi du taxawaay boobu la ñu war a taxawee l'éthique la déontologie euh, mhm. la transparence li nga xamante ne moom mooy l'équidistance gis nga gis est-ce que yaa ngi yaa gis fi may fi may ñëw mhm. maanaam jamono ji euh, gis nga il faut encore une fois le dire c'est très difficile de voir des maisons de presse ñu day par exemple du quotidien Stade à par exemple du quotidien Suñu Lamb Mm-hmm. mais Mamadou Ibra Kane il a il a investi sur ça. Mm-hmm. pendant vingt ans ñoom ñu def ay parutions. ñu xëy xëy benn jour problème am ba ñu commencé dàq vingt personnes. et certainement mm-hmm. des pères de famille. vingt personnes certainement des responsables. vingt personnes yoo xamante ne aujourd'hui on a été ensemble sur le terrain. mais malheureusement on ne le sera plus parce que sinon ce sera dans d'autres circonstances parce que li nga xamante ne moom moo xew même si. c'est c'est important de le rappeler cela n'a encore une fois rien à voir avec li nga xam ne mooy régime en place c'est une situation euh, financière boo xamante ne nekk na fi ci biir bu Sénégal mais gis nga ak lépp lu mu mënti doon cette situation précaire bi nga xamante ne le monde des médias mu ngi koy dund. Mm-hmm. il y cette situation boo xamante ne pareil par exemple yoo xamante ne am na yeneen ñoo xamante ne ñu ngi koy dund ñaata entreprise. Mm-hmm. la ñu wax ne seen borom jaay na ko. ay étrangers ci biir ci yoo xamante ne ñu nekkuñu ci biir réewu Sénégal des entreprises yoo xamante ne elles n'ont absolument rien à voir avec la presse et que li may li tax may attirer attention ci entreprise yooyu pour def la corrélation avec la presse mooy que il faut que le gouvernement actuel ñu jàppale li nga xamante ne moom mooy les entreprises nationales mm-hmm. parce que jàppale les entreprises nationales il il va encore une fois ci li nga xamante moom la ñu wax. Mhm. avec le chômage. parce mhm. que ces zones ces entreprises nationales là. Mhm. c'est pas des étrangers ñoom ñoo ñëw pour liggéey fii en quelque en en majeure partie c'est pas des étrangers mais gis nga la situation de la presse encore une fois je le dis je le il faut que l'État y met sa main. ñu jàppale les entreprises de la presse qui de faillite ñu jàppale leen xool naka la ñuy def ba waxtaan ak ñoom bu fekkente des questions d'impôts ñu xool naka la ñuy def ba waxtaan ak ñoom cette situation ñu jàll ko dem ci li nga xamante ne moom la ñu xam mooy liggéey li nga xamante ne moom mooy liggéeyu journaliste en tant que tel liggéey bi nga xamante ne moom mooy cette veille bi ñu war a def en tant que journaliste liggéey bi nga xamante ne moom la ñu a def mooy cette quête vers l' information bi nga xamante moom la ñu a def en tant que journaliste mais encore une fois aussi il faut que ñun tamit en tant que journaliste ñu réadapté wu par rapport aux de l'heure parce les médias classiques euh, la presse écrite en tout cas les journaux yi nga xam ne dañuy dafay paraître entre autres la télévision dafa am beneen xeet boo xamante ne mu ngi ñëw et je le dis depuis un certain temps il faut réadapter la presse sénégalaise par rapport aux exigences de l'heure il faut réadapter la presse sénégalaise par rapport li nga xam ne mooy les opportunités de l'heure ñu ngi koy def mais il faut que mu gën a gaaw et pour mu gën a gaaw il faut que l'État du Sénégal encore une fois mu indi njàppandal ci li nga xamante moom mooy la ci li nga xamante moom mooy jëm ci biir bi c'est très dommage tey jii ñuy wax ci li nga xam mooy la situation précaire bi nga xamante ne suñu en tout cas ñun ñun ñoo koy dund euh, dans la presse sénégalaise mais j'espère que d'ici quelque temps dinañ ko régler et on va passer sur autre chose ci li nga xam garantis et je le maintiens la place primordiale bi nga xamante ne la presse mu koy mu ngi koy def ci biir réew bu Sénégal on ne peut pas encore une fois donc vivre sans passer de cette presse responsable bi nga xamante ne mu am ci biir réew bu Sénégal. d'accord monsieur Diallo crise bu ñuy wax actuellement ci média bi ñu dem ba tab bi une ci une journée sans presse